alihi wa sahbihi wa xadimi ajmain ah, Cheikh Ahmadou Badawi yow mi nga xam ne yaa fi nekk toogaayu sëriñ bi nar jël kàddu itam ci turu sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la yóbbante sunu nuyoo ak sunu ziar ak sunu ndokkeel ci Cheikh Mouhamadou Mountakha moom mi nga xam ne moo joxoon ñaari mbooloo yii muy daayira rawdu rayaxiin ak daayiratu muqaddamatul xidma ñu taxawal ko gàmm gi fii ci jumaa ji mu taxaw ci taxawin bu rafet la ko ci war lépp itam mu def ko kon ñu lay teg sunu ziar sunu cant ci sa loxo ngir nga tegal ci loxoom di jàll itam di mboolem mbokki taalibe yi nga xam ne jàpp nañ ci jàppan bu rafet te xëy na duñu bëgg tudd seen tur wante nag ñu xam ne yàlla ak yonent bi ak sëriñ bi tax ñu ko def moom xam nañu ko nuñ ko nuñ ko seqal xam nañ ko ñoom xam nañ ne ñoom lañuy wax xam nañ ne gàmmo gi ren ci nawet la doon nañ bàyyi xel taw bi ba tax na ñu amoon ci xalaat bu ñu ci waxee ak lenn ay bokk ñu buñ ci jëlee buñ ci waxee ak lenn ay bokk ñu taxaw ci taxawin bu rafet jël tant bi ci milo yu bari seen poos andi ko ngir yàlla ak yonent bi ak sëriñ bi ak yeneen bokk yoo xam ne taxaw nañ ci yeneen wet yoo xam ne mënut a ñàkk taxawin bu rafet kon ñi ngi sant ñoo ñëpp ci turu ñaari mbooloo yooyu nga xam ni ñoo la sëriñ bi santoon liggéey bi sant mboolem kon ñi ko ñi ko sëñ bi santoon muy daayira yooyu le taxaw nañ ci seen kém bakattan ngir mu tege ci ay yoon ngir mu sell ngir mu dëppoo ak ni ko sëñ bi bëggee fa tabarkalaw ahsanu xaaliqin yaakaar naa ne képp fi ñëw xam nga ne dëppoo na ak ni ko sëriñ bi bëggee kon li des rek mooy yàlla na ko yàlla nangu te fay defal ñëpp jàmm def ko ci réew mi def ko ci réewu jullit yëpp suñu borom teggi ràgg yëpp te faj aju yëpp ndax guddi gi lépp lu ñu ko sof rek ko ndax am nañ ci yaakaar ci ne suñu kem kàttan def nañ ko ci dundal nii ko sëriñ bi bëggee kon mën nañu rafet ci njort ne lépp luñ ci fas wala ñu ko ci suñu borom mën nañu ko defal kon ñu ngi ci fasal jullit ñëpp ñu am jàmm julli yeb mucc tay ak ëlëk ndax dëgg yàlla ñu ngi beral seen tam ñi nga xam ne yoroon xaside yi bu baax muy kuréel yi ñi xam ne yoroon jës bu ak mooy bi muy suñu njaboot waaye ni mu ko waxee suñu mbokk yi Tuubaa Ngoy yi nga xam ne ñoo yoroon moo xadamaat bi bi nga xam ne moo ci gën a diis ñu ngi leen di beral cant bu baax di leen bàyyi xel na ma ko waxoon sëriñ bi rek seen taxawaay maa ngi koy fàttali seen taxawaay ak taxawaay daayira bi yëpp euh, ni ma euh, baaxoo waxee nag sëriñ bi naa la yóbbante naa jotal yóbbante taalibe yi ci sëriñ bi taalibe yi nee nañu dañoo bëgg ñëpp wér ndax ab murit day yëngu day liggéey loolu ku wér moo ko man ñu ñaan ma fàggal nu kon ñëpp wér ñu ñaan te ma fàggal nu ñëpp yor ab murid dee war a joxe te ko amul loo joxe doo joxe kon ne sëñ bi nañ fàggalu murid yëpp nañu yor waaye murid yëpp itam nañu yaru ndax ab yar mooy li fi indi sëñ bi na ne ab yar mooy li fi ne ku fi jëlee bay yoo fi dara ku jële woo fi dara nu fàggal nu wér te yaru ñu ngi koy yóbbante nga waxal ko sëñ bi kon loolu mooy kon jox nga jot li kaddu kàddu señ bi ñi ngi balu ak ñep di sa ñep di gërëm ñep nak bayu ñu kenn assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu